leeral sa position walla sa jarul nga weer sa walla setal sa der jarul nga weer say bokk jarulit nga weer say wóllëre ku ko def rekk dof nga moom kay dangay seet ñiy saaga ndax jar nañu tontam déet wat na ci yàlla ni yonent bi rek laa gëm bu ma saaga woon ma fayu billahi wal kitaab yi cheikh rek laa gëm bu ma saaga woon rek ma fayu cheikh alxaj malik rek laa gëm bu ma saagaa rek ma fayu wallahi sëriñ Babacar Si mii sama lépp moo saagaa rek ma delloo ko ko wal kitaab wante kenn kenn jaraluma bëgg leeral tax ma wax lu gaañ gor duma ko def mukk moo tax nag gannaaw a yàlla may la wallaay wallaay mag ñee ko daan jàngal xale yu tuuti yi bala ñoo am juróom-ñetti at ñu jàngal leen njariñu gannaaw a ngoog yàlla may la xale bu tuutee la koy wax wallaay te nekk ci waaw boo demee ci kër mag ñi xale yu tuuti yaa ngi ca buntu kër gi ku ne naan sa moroom gannaaw a ngoog yàlla may la xale yu amagul juróom-ñetti at wala ñu naan di jal bi jalaan di wax ni baax a gën bon ñaaw a gën dee xale yu tuutee koy wax waaye léegi kenn jàngatu ko waaw kenn mayeetul gannaaw fenn moo tax yépp bloqué moo tax yépp bloqué bu ñu bëggee yépp débloqué na ñépp maye gannaaw yi na ko ñépp maye ci la jàmm ji nekk waaw waaw ci la jàmm ji nekk de ndax kat ku bëgg di gileem ku bëgg di gëléem ku bëgg di gëléem di nga ñemee fanaan biti waaw ku bëgg di gëléem di nga ñemee fanaan biti bëgg di gëléem di nga ñemee fanaan waaye ku ñemewul euh, euh, fanaan biti nag bul bëgg di gëléem mukk nekkal ganaar rekk walla leneen moo ca waaw waaw mel ni kon nag tàmbali nañ ko tey yal ko yàlla mottali cadre yi ko yëkkati nu fekk leen ci yal leen yàlla jox ndam président Abdou mi kilifa gi nanamam yàlla bu ko dara ŋaaw yal ko yàlla musal na mu musale nitam yu ko yitteel ci mu aar leen yal na ko yàlla musal leen noonu nun ñiy wëllëreem di xaritam